docteur Ousmane Ndiaye ginnaaw bi ñu la nuyoo am mbégte mu rey ànd ak yow ci euh, matinalu tey bi euh, fàttali juste que ni yow euh, psychosociologue nga alors docteur ñu bëggoon waxtaan ak yow tey ci tolluwaayu xelu ndongo yi nga xam ne ñoo war a dem jàngi le vingt cinq juin ndax danañu am xel mu dal ñoom ñi nga xam ne ñooy def examen bu pression wu examen bi dajee ci ñoom boo lekk pression bi nga xam ni mbas mi daal dina koy créer si bépp doomu aadama tey soxna si état mental mooy équilibre boo xam ne daanaka ni ma ko mën a waxee ci ci wolof sax euh, équilibre bon xëy na c'est auditeurs yi dinañ xam mooy lan mooy daanaka équilibre boo xam ne dëgër na nit ki du daanu jëm à gauche wala daanu jëm à droite mu ngi taxaw ni cocc और examen <coughs> déjà rek doy na pour stress examen stress la àndal pendant des mois et des mois muy xale bi nekk CM2 muy xale bi nekk euh, troisième wala euh, xaleel góor bi nekk terminal ñoom ñëpp dès le début de l'année ñu ngi su tension mu ngi mel ni courant bu am doole mooy dugg seen yaram dugg seen xel nga ñëw yokkal si année boo xam ne at mi nga xam ne at mi dafa doy waar torop torop torop defe naa mooy at ma gën doy waar ci àddina bi depuis euh, lu yàgg yàgg yàgg en tout cas Sénégal defe naa mës ñu ko dund te defe naa ñeneen ñu tam mës ñu koo dund parce que mbas mi jógee xawma fan ñëw dugg ci àddina bi yëpp dugg sunu réew mi euh, déjà tiital na ñëpp ku wax ne tiito du dëgg ci yow mais am na ñoo xam ne dañuy weddi pour se protéger loolu moo tudd loolu ñun loolu lañuy tuddee mécanisme de défence bëggoo xam bëggoo yëg parce danga defe ne tant que gis yow yëgoo ko euh, gëmoo ko du la dal loolu du dëgg moom mais nag euh, am na ñoo xam ne noonu la noonu la bindoo noonu la ñuy doxalee loolu espèce su ragal la rek euh, donc mbas mi dugg na ci réew mi xale yi yëg nañ ko tiital na leen mbas mi ñu ngi ciy wax bés bu nekk. ñëpp ci waxtaan xale yi yëg nañ ko dana leen euh, seen tranquillité moom daanaka jeex na ñi boole ci ne euh, président de la république moo wax ne guerre la ñu nekk dañuy ger euh, virus bi guerre virus boobu immédiatement ñi jël ay mesures mesure bi presque confinement euh, comment dire, euh, qui euh, couvre-feu, etc., etc. Bon, nit ñi ànd si ak yeneen dogal yu bari ñu wax nit ñi dañu war a def nit ñi di ko respecter bon toog si kër yi xale yi toog nañ si kër yi euh, mais loolu biñ koy décréter boobu fekk na li fi amoon ci ay cas ay feebar weesuwuloon fanweer weesu ko woon ñi jëkkee jékki dem ba euh, feebar bi to dem ba laal lu ëpp ñaari junne nit ñu ne déedéet léegi daal lu waay xam def ah débrouillez-vous euh, ku nekk na jël responsabilité mais et cetera feebar baa ngi fi mais nag débrouillez-vous loolu incohérence le mooy Euh, wax lii def leneen incohérence la te loolu dafay gën tiital nit ñi immédiatement jóge ci confinement euh, ñi ne la defal lu la neex léegi mais day day mel daanaka rek yow dañ la dañ la dañ la sacrifier dañ lay da ngay perturber perturbation boobu nag dafay yokk tiitange mais xale yi comme dañ leen tëjoon tam ñoom ñëpp ñu ngi léegi ci mbedd yi ñu ngi ci plage yi fu nekk ñu ngi fay dem euh, en masse mel ni euh, ku ñu tëjoon ba yewi la euh, léegi nga am liberté bëgg def lu la neex plage yi léegi gis ngeen xale yi su leen fa alkaati yi bëgg jëlee sax dañuy bañ ah jaral nañ sax ñuy jàmmaloog alkaati kon nag loolu beneen firndi la beneen bi mooy lan ñu ngi nii jëm ci examen situation d'examen dafa laaj xel mu dal fi mu nekk nii famille yi nga xam ne seen doole demeewul noonu ñu ngi xaar tal nañu leneen que di jàppale seen njaboot ci examen yi muy CM2 muy troisième muy euh, terminal xale yi nga xam ne seeni waajur amuñu doole te ñoo ëpp ci réew mi ñooñu daanaka si jaaxle lañ nekk examen sax est-ce que xalaat fi mu nekk ñu ngi koy xalaat sax est-ce que taluñu leneen bon donc euh, ñi nekk peut-être terminal te xam li ñu bëgg parce que seeni waajur am nañu xam-xam am nañu moyen yi ñuy euh, toppatoo seen njàngu doom xëy na ñooñu sax dinañ xam dinañu dañ ko def en jeu c'est-à-dire bëgg daal ñefee kut ko kut bi am ko mais du ñëpp loolu ñu néew lu néew la lu néew la lu néew ci xale yooyu ñi am ñi nga xam ne seeni waajur am nañu kàttan boobu bëriwuñu noonu bon résultat condition yi ñuy defaree yi ñuy préparer examen yi du doon loo xam ne euh, dana dana dana woy yomb si xale yi parce que seen xel lenen moo ciy nekk tal nañu leneen véritablement même suñuy def bachotage bachotage mooy nga sa nekk si di jàng di jàng guddeeg bëccëg guddeeg bëccëg euh, ay di jàng bi ay trois heures du matin et cetera bëgg a teel yeewu reprendre encore di jàng loolu yëpp euh, li muy wone rek mooy ne xale bi dafa gën inquiet encore parce que loolu ku ci nekk wóor na leen ne soo noflaay bi su doyul nelaw yi su doyul examen bi ni conditions yi nga koy passé c'est pas de bonnes conditions pour nga am résultat yu baax bon donc euh, man ci sama gis-gis bu gàtt jaruloon ñiy bëgg a def examen yi coûte que coûte ba di lor xale yi su benn xale rek gaañoo wala su benn enseignant rek gaañoo ci mbas mi à cause de ces examens là mais dana nekk lu doy waar est-ce que jar na ko est-ce que jar na ko doomu ba bakkanu doomu aadama moo ëpp valeur ci sama gis-gis examen yi muy enseignant bi muy élève bi kon nag euh, franchement euh, te seetal conditions yi ñu koy organiser est-ce que am nañ sax moyen yi euh, ñun ñun ñëpp xam nañ li xaw ci réew mi seetu buñ seet Dakar rek nañ seet tam région yi déjà classe yi nga xam ne du bâtiment lan la ay euh, xaw xawma mooy niñ koy waxee xawma nag euh, abri provisoire bon boole ak taw bi si région yi parce que ren dafa commencé teel taw bon euh, nga boole ak en plus ak le fait Euh, euh, xale yi classe boo dem y a plus de quatre-vingts jëm cent élèves quatre-vingts cent élèves soo waxee ni da da ngay def distance physique ñaata <laughs> ñaata classe ngay non mais noo koy organiser c'est pas possible hein c'est pas possible su doon sax euh, ay réewu tugal yooyu nga xam ne ay benn classe daal maximum vingt-cinq élèves lay doon Euh, classe bi soo ko xaajee ñaar peut-être enseignants yi débrouillé mën nañ mais ñun su dee classe bi ay douze ngay jël te xale yi nekk téeméer ñaar ñaata enseignant ngay mën a mobiliser dañu am enseignant yooyu amuñu ko loolu yëpp amuñu ko moyen yooyu amuñu ko te xale xale la xale yi nekk CM2 il leur sera très difficile de respecter les mesures barrières il leur sera très difficile sur plusieurs semaines de respecter les mesures barrières donc su fa feebar bi duggee rek dinañ ko joxante seen biir jox ko enseignant itam et cetera bon kon nag pour toutes ces raisons là man daal yaakaar naa ne vraiment war ñu woon euh, maintenir coûte que coûte examen yi parce que je me demande lan moo war moo waral ñi bëgg maintenir examen yi dëggantaan ñii lan moo tax ñi bëgg organiser examen yi dans ces conditions absolument pas raisonnables ce n'est pas raisonnable voilà loolu daal la laa bëggoon wax ci euh, xale yi léegi nag euh, xëy na enseignants yi seen bopp. waaw justement parce que dañuy xalaat yi. waaw mais enseignants yi corriger aussi soxla nañu benn quiétude benn xel bu dal. boo xam ni xëy na ci mbas mi tamit du yomb ñooñu ban impact la situation bi mun a am si ñoom ak correction yi. enseignants yi ñoom ñoo gën tiit encore ci mbir mi. ñoom ñoo ci gën tiit parce que ñoom xam nañu lépp du ñu ay xale xam nañu li waa ministère des de la santé di wax yëpp loolu yëpp dëgg nañ ko xam nañ ko kon nag euh, esprit de sacrifice professionnalisme moo tax enseignant yi nangoo dellu seen école pour dem jàngale xam nañ ne mbas maa ngi ci réew mi que xale yi mën nañ ko gàddu indil leen ko seen seen seen seen école yi wàll leen te enseignant bu ci am beneen laago bu ci am beneen feebar soo moytuwul euh, di nga am problème yu rëy rëy rëy soo moytuwul sax nga doxee ci ñàkk sa bakkan loolu yëpp enseignant yi xam nañ ko donc defe naa waajur yi dañ leen war a féliciter encourager leen ci sacrifice bi ñuy def parce que sacrifice bu rëy la gis ne lii mën na la indil masiba nga ne sama liggéey la kon nag foog ma def ko xale yaa ngi nii man maa leen war a jàngal euh, foog ma dem euh, et cetera loolu effectivement engagement sacrifice bu rëy la enseignant yi di consentir ci affaire boobu parce que il est évident que toog ak xale yi xale yi du ñu respecte du ñu mën a respecter les mesures barrières pendant plusieurs semaines bon kenn moo ko ci indi jox ko keneen et cetera enseignants yi forcément foog ñu jot ci mu kon nag euh, nga xam ne enseignants yi seen bopp ci tàngi lañu nekkee seen xel du dal ñu ngi def seen liggéey mais seen xel yëpp a ngi ci virus bi kan moo leen koy jox seetal ki ñi koy ñi koy ñi koy am rek niñ koy niñ amee da koy am te doo xam sa fan fan fan nga ko jëlee ah même ay kilifa yoo xam ne mën nañ ko am te xamuñu fan lañ ko jëlee mm-hmm. à plus forte raison yow nga nekk enseignant jàkkaarloog xale yi di dugganteeg ñoom euh, à longueur de journée euh, et cetera pendant euh, des semaines et des semaines loolu c'est sûr que balaa ñuy jógee balaa ñuy jeexal enseignant yu bëri dinañu am feebar bi. léegi euh, ñu wax euh, tamit ci li nga xam ne ministre bi wax na ko muy que ni dinañ leen indil benn soutien euh, psychosocial donc bu fekkente ni dañoo maintenir examen yooyu lan la kilifa yi mun a def pour taxawu ndongo yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy. jàngal ci sama gis-gis bu gàtt daal loolu ay waxantu la. soutien psychosocial mooy lan est que véritablement xam nañ lan mooy soutien psychosocial d'abord ma wax leen lenn. psychologue amul Sénégal daanaka par benn benn la bëriwuñu fii pourquoi parce que depuis 68 Senghor moo tëjoon enseignement wu psychologie Sénégal ah psychologie ak sociologie yëpp lañ tëjoon sociologie bi nañ ko depuis ay si at yee passé rek ça fait au maximum vingt ans bi ñu ubbee sociologie mais psychologie bi léegi tey. amul Sénégal kenn jàngalewu ko fi ku ko jàng itam yaa ngi ko bitim réew loolu tax enseignant euh, psychologue yi bëriwuñu Sénégal euh, wax ne waaw euh, apport soutien psychologie psychosocial mais jël assistance sociale bëgg ko wàllu infirmier bëgg ko defloo liggéey boobu dafay laaj moom si boppam ñi jàngal ko ko or ce n'est pas aussi évident nit du tëb tëb rek nekk euh, mën def un soutien psychosocial xale dafa am ni ngay liggéey ak moom loolu psychologue yi ñoo ko xam euh, mag ñi muy enseignant yi dafa am nooy doxante doxaleek ñoom parce que enseignant nit ku yeewu nit ku xam la nit ku ràññee la doo ko wax n'importe quoi doo ko defal n'importe quoi il est très difficile Euh, euh, euh, de travailler avec un enseignant sur le plan psychologique. Mm. bon donc soutien psychosocial daal du ay saaku ceeb nga yóbbu. toogu waxtaanal ko tuuti laaj ko lii laaj ko laa jóg dem non non non c'est pas ça du tout c'est pas ça du tout le soutien qu'il faut apporter kon nag loolu defe naa ay wax la rek yu yu yu ñu yëkkati noonu. pour wanee ne ñu ngiy def dara mais en réalité mënuñu ko. voilà docteur Ousmane Ndiaye ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte mu rëy ànd ak yow ci waxtaan wi euh, ñeel réew mi FM fàttali ni yow euh, psychosociologue nga sa xel dafa màcc jëm ci euh, xelu doomu aadama ak lépp lu mu wundoo ñu ngi lay gërëm di la sant.